ngir dundal weeru koor wi nga xam ni ñépp xam nañ fi ko Sëriñ Tuubaa tegoon ci wormaal ak màggal ñu di ko dundal dundin wu sell ci ñaari yëf yi nga xam ni bu amee liñ bëgg ci weeru koor bi danañ ko am te moo di xam ne nii woore ak am lu ndoge bu ngoon jotee kon nee na mi ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm yéen a mboolem ñi aji ci jumaa ji waaye di nuyu ñi nga xam ni ñoo fi toogal Cheikh Mouhamadou Moustapha ibnu ma Massamba moom mi nga xam ni mooy borom jotaay bi moom lañ ko jagleel mu yebal fi waa këram sëriñ Abdoulaye Sakh ak ñi àndal ñëpp moom it di koo xam ni lii ñuy def ci biti muy bendeel nit ñi bendeel ga bendeel nit ñi ngir bëgg ñëpp am nañu doge kenn jiituwu ko ca ba am ci cër bi mu ci am te loolu bu amee dañuy wax ni laaxar wala ndax ku xam Seex Masàmba xam ko ci bernde xam ko ci lépp ki ko fi nekkal bu wuutoo sëñ bi ci loolu loolu kenn du ko nattale waaye mi ngi dellu sant bu baax a baax ki nga xam ne moo doon def waxtaan waxtaanu tey wii ndax waxtaan wi boo ko dégloo ba mu jeex mooy li sëriñ bi waxoon bii te def ko ijmaal moom la taqali fii ci jataay bi moom sëriñ Maam Mor mi doon def waxtaan wi la sëriñ bi waxoon bii ci kumte gi rek loolu tàqale ci waxtaanam lépp ba mu gën a leer nañ ndax sëriñ bi ku ne xam ne amul jotu toog di wax wax ju yàgg waaye bu waxee la mu war a wax rek ñu si leeral ko la mu ca bëgg a wax lépp mu leeral ko kon moom itam sëriñ baa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaan waaye di ñaanal mboolem ñi nga xam ñoo nar a topp ci ginnaaw ci bis yi di ñëw ngir ame jataay bii di ci xam ne koor di ci xam ne diine ci xam ne taalu bi ngi leen ci sant baax di leen ñaanal mu àgg ci jàmm mu fekk ko ci jàmm te jàmm rek xew ci barkeb Serigne Touba mu wëlbati ko nag nee na di soññ mboolem taalibe yi daayira yi ak defkati lu baax yépp luñ man ñu jàpp ko ci lii nga xam ni moom la waa Moukhaddamatoul Khidma di taxawal te mooy iftaar yi mooy ndogu yi ndax mbir la moo xam ne mii yonent bi soññe na ko sëriñ tubaa soññe na ko ñu góorgóorlu ci baax lu ci waay man nga xam ne sa bopp nga defal di ñaan na ci barkeb sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moom la fi nekkal te nañ ko waxee woon ci woote bi weesu lépp lu mu ñaan ci moom suñu borom dana ko may nee na mi ngi ñaan suñ borom may nu ñu woor woor kooru jàmm amuk wér am kàttan am jàmm ami xéewal ba mun koo def ni ko suñu borom bëgge te am ci ngërëmal sëriñ Tuubaa mi ngi xam ne moom lañ koy def ci dëkkam nee am na ci xel ma dal lool ndax Tuubaa gi ñu koy defe ak réew mi ñu koy defee te sëriñ Tuubaa dëkk ci rawatina Tuubaa gi ñu koy defee rawatina fii ñu defi waxtaan wi rawatina fii ñu defi bernde yi nee jàpp na ni képp ku fi teew lépp loo sàkku ci suñu borom sàkku ko ci sëriñ Tuubaa suñu borom dana la ko defal nam la gënal noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaar ñu teewe ko naka ni déwén te kenn bañ a manqué mi ngi ñaanal njabootu Serigne Touba gi Serigne Touba dafa sëñ suñu borom dafa leen jàmm li ñu yéene ci liggéeyal Serigne Touba ci weer ñoom njabootu Serigne Touba gi ak jigéen kilifa diine yi yéene ko liggéeyal lislaam ci weer wi ci ñëpp suñu suñu borom dafa leen ci lu koy seen jot kàddu yooyu la sëñ bi waxoon nañ ko jottali ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.